maam jaara mhm. daaneele laay commencé mooy CEDEAO suñu fàttalikoo Yaya Jammeh Yaya Jammeh ban situation la waxoon mooy dafa demandé woon juste nañu compté waat voix yi parce que wóoluwul ñoom li ñu doon tuddee seen conseil constitutionnel mhm. dafa jàppoon ni jalgati am na ci mhm. waaye kenn nangulu ko ak commencer par Macky pourtant c'est-à-dire que mën nañ jàpp ne su dee loolu la rek c'était dans son droit de dire nañu wàññiwaat xob yi xam nga ndax moom d'accordul gis na ni am na ay malversation tey euh, euh, Macky Sall lan la indi jusque là nag mosuma ko wax Macky Sall mais euh, on considère que dès lors mu posé yenn actes yi c'est que légitimité boobu dey commencer dañ mm. doyen nee na à partir du 2 mais déjà à partir de maintenant teg na nekk na ci raay boo xamante ni mënatuñu koo même considérer comme légitime bu ñu dellusee ci ci ci ni ni ni ni ni état bi di doxee depuis le départ c'est Macky Sall c'est quelqu'un boo xamante ni musul gëm droit musul gëm droit parce que tout le monde se souvient de 2007 quand il a voté sans pièce d'identité forcé l'urne donc koo xam ni la musul gëm réellement droit en réalité hmm. et euh, yeewu non que le neexatuma nañu xëcc licence am c'est-à-dire parce que même su tooñee nañu ko jaarale ci droit soo ko koy delloo itam delloo ko ci droit du ton boulot bon vouloir c'est-à-dire moi je suis parfaitement d'accord ak seen communiqué bi hein mm. mansuétude magnanimité parce que en réalité on fonctionne comme ça moom mooy neex mu am magnanimité moom président mu delloo la sa limu la nanguloon waaw voilà am njéggal daal am njéggal moom moom mooy ki nga xamante ni moom mooy euh, euh, moom mooy jéggal moom mooy accusé moom mooy c'est-à-dire que euh, buum di bumi mm. c'est-à-dire que c'est le juge c'est lui l'avocat moom mooy def lépp mm-hmm. donc bu ñu xesee ba egg ci loolu dañuy jàpp ni état de droit moom mu mënatu fa am dañu tolloon fo fenn ak président Abdoulaye Wade ci troisième mandat mm-hmm. ñu ñëw population yi xeex ak moom ba tollu fenn fi ñu ne ah bon egg nañu fii conseil constitutionnel c'est pour diir quand même sénégalais yi loo ci munti dégg gëm nañu droit gëm nañu justice mm-hmm. xeex nañu mais bés bi conseil constitutionnel ne am na droit ñu ne ok nañu utiliser suñuy carte dem battre ko. Mhm. c'est tout. on a toujours justement d'ailleurs euh, tout ce qui tirait sur F24 loolu la woon. mais F24 a toujours été dans la légalité. mooy lan mooy tant qu'il président de la République. tant que c'est-à-dire eggaguñu conseil constitutionnel ñu dem ci leneen tant que troisième mandat bi moom yëkkatiwu ko bi mu ko bàyyee. dañu jubal ci processus électoral. Mhm. commencé xool nu ñuy def de telle sorte que le processus électoral soit fiable. Mhm. pour éviter ce qui ce qu'on est en train de vivre. parce que ce qu'on est en train de vivre quel que soit Alpha c'est des Sénégalais qui s'entretuent. Mhm. xeexuñu ak beneen dëkk c'est entre nous Sénégalais. ay Sénégalais ñooy rey ay Sénégalais tey parce que ñi dee ay Sénégalais leen rey. Mm. du yeneen xeet. Et pour éviter sa fale aller dans une situation où on a un processus électoral, électoral libre, transparent, inclusif et démocratique. Mm-hmm. Et ci loolu lañ doon xeex boobu ba léegi. li mu joxe woon gauche moom la nangoo droite. Mm-hmm. mooy lan mooy man ne woon naa ni du ma def troisième mandat et ñu dem ba nga xamante ni veillu démarrage campagne électoral nga yeewu nga ni yow abrogé nga benn décret même boo ko abrogé dès lors que député yi ñoom dem nañu déposer recours la campagne électorale continue donc n'importe qui cest à parce que jusque là on avait di bon en tout cas nous nous concernant F24 ñaata yoon lañ fi demandé manifestation ñu interdire ko. ñu sursoir ñu ne dañoo ragal. Mm-hmm. du question dañoo ragal c'est-à-dire que c'est être encore dans la légalité pour que moom ci boppam mu mën ñoo bañ a bañ a bañ a jam kenn parce que c'était l'appeler lui dans la légalité. Mm-hmm. et aujourd'hui ce qui est en de se faire est illégal. c'est-à-dire que CEDEAO tout ce qu'on attend d'eux c'est très simple mooy la ñu waxoon ba ñu koy wax ci Gambie. bañ koy wax ci ci ci Niger bañ koy wax ci Mali leneen nañ ko wax ci Sénégal mhm. vraiment aucun discours diplomatique taxuñu fi bàyyiwuñu fi mhm.